leen lii. d'accord ñu dugal Abdou Nguer salaamaaleykum. salaam. Abdou ngi ñu ngi lay nuyu ngi lay nuyu di la euh, ziar mbaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi bu baax a baax. yaa ngi ci biir émission bi ça se discute. waaw maa ngi nuyu ñuy faral di seetaan ça se discute yëpp nuyu temps moom ci plateau bi. ñooñu mm-hmm. Sénégalais yëpp bàyyiwuma kenn. Mm-hmm. taw nag ñu. jigéen doomu di may mun a ndul xay ñu koy masawu te yàlla na yàlla fëgg boppam amiin boppam tëdd nag lu baax mhm. baax la d'accord ne dina ko ci Abdou euh, dañoo gis ni kii di président Macky Sall ci euh, dialogue bi dafa daal di ne day proposer loi d'amnistie ginnaaw loolu mu proposé ko ñi nga xam ne mooy ay ministre am ñooñu daal di adopté loi bi ban jàngat nga am ci loolu. waaw président bi ak euh, yàgg na ko junj ndax facture mu wax ko man li may wax rek loolu mu bëgg daa mënta ne moo ay ministre bu leen neexee adopté loi waaye loi moom député yi ñoo koy voté mhm. te ku la loolu ñu naan ku la aali bu ko neex ngay xool moom ministre yi moom moo leen aali bët moom moo leen fal mais député yi falu leen ñun ñoo leen fal. dëgg la te nag. ñun askan bi ñun lañ doon gaañ ñun lañ doon sàcc suñu alal ñun lañ doon yàq suñu alal ñun lañ rey mhm. suñuy mbokk dëkkandoo mhm. kon nag yooyu yëpp bu amee ñoom ñun ñu leen fal yóbbu leen assemblée ñun ñooy sàkku ci ñoom ne leen mhm. lii bu leen ko def te bu leen ko waxee bu ko def ndax xam naa ne képp koo xam ne bëgg nga réew mi te bëgg réew mi jëm kanam mooy nga xam nga nekk député koo mën a doon lii àndoo ci lii tey bu ko defoon référendum du am cinq président Macky Sall dafa ñëw bëgg leen ko dafa mel dafa mel ni d'après Tange li mu wax léegi moom dafa recevoir démb député APR yi ne leen nañu voté loi bi. waaw da leen recevoir ne leen nañu voté loi ñoom ñoo war a am sañ-sañu ne ko dog duñ ko voté parce que ñoom député yooyu bi Macky Sall bëggee voté loi pour pour ñu wàññi seen ñu mu mën a tas assemblée balaa deux ans dañoo bañoon. Mhm. dañoo bañoon. Mhm. génnewaat rocciwaat loolu ci loi bi moom set mais léegi lii mu ñu bëgg indi tuuri doonu musiba naaru laay nii lan moo tax duñ na nañu bañ te buñ ko voté te am na ñoo xam ne jóg nañ takku taxaw mhm. c'est la première fois nag ma mën a ma nar a wuy ji woote bi yaanaa maar mooy man mhm. comme ne na ñoom dañuy xeex pour ba bañ a taxaw man dinaa leen wuy ji ànd ak ñoom ci xeex bi lu ci góob a ko mhm. am na loo xam ne mënut a ne suñuy mun ñoo yàqal suñuy ala terroriser dëkk barki démb lañ génne booy kaso démb lañ dem bëggoon a rey may mun a ndur fay léegi loolu lan lañ ko mën a layale te juróom-ñaari weer ci ginnaaw réew maa ngi amoon jàmm réew maa ngi woon dal ñëpp ñu nekkoon ci jàmm kon tey buñ ñëwaatee génne leen ba naaru laay bi commencé lan la ñuy wax lu mus ta xew bu xewee te gan ña la gan ñi dugg gan ñi génn ñu ñëwaat ñoo indi lii fi am président Macky Sall nag li ma la wax rek dafa dem ba jeexal xamul lan lay def mu bëgg a saboté réew bi ci la nekk hmm. àdduna bi yëpp ku ci voté loi amnistie ba àtte ba pare. Mhm. yow kii kii waxula maa la tooñ yow xamaguñ moo la tooñ xamaguñ tooñagu la léegi yow nga ne dama koy baal est-ce que moom moo la baalu baaluwu la. Mhm. Macky Sall la gala en réalité nañu wax lan moo làqatu ci luwaam bi. Mhm. lépp en réalité nañu ko wax nañu ne luwa bi nangam moo ci làqatu ñun ñu xam ko mais lii dadul luwaab dara am na lum làq nga yaakaar non am na lu nekk ci biir. parce que hmm. lii du du munoo fekk ay wuyu yu taalum réew rey reylu ay nit nga ñëw nga ne dama leen di amnistie nii am na lu mu dëgëj ci biir loi bi te bu loi bi génne ba ñu liir ko di nga xam ne ma la wax dina am lu mu dëgëj ci biir loo xam ne pour moom la ak ay ministre yi nga xam ne dañ leen di ji ay détournement dañuy public ak ay fokk yooyu noonu xëy na ci biir mën naa am dëgëñaale ko il faut ñu vigilant. Hmm. parce que lii du nekkul yërmande. Hmm. lii du yërmande. président la mu doon wax barki démb la mu wax benn. da mhm. ne woon ko ko joxee ba ba mu fi jógee képp ku taxaw bëgg ko yàq dina def a ak yow. Mhm. kon tey bu demee bay dem ñooñu doon yàq réew bi bëgg leen a génnewaat ñu bokkaat ci société bi. Mhm. kon dañ naan ko am na lu xew lu mu waxul. politicien nag lii mooy seen problème jëriñoo jàppale jëriñoo àndal moo tax jeunes yi nañu yeewu ñu gëm seen bopp ñu bañ a topp ci coowul politiciens yi coow yi. xam nga lii yëfi wuyu la ay nit rayante jaay seen bakkan rayante. ñu rey leen ci yow nga ñëw au lieu que nga wëri nga leen rey yëpp teg ko ci yoon ngir ñu àtte ñu xam ne ñun ñoo def mhm. boo leen dee gracier yow yaa moo pouvoir de grâce mais koo xam ne wax xamaguñ moo def xamaguñ defaguñ te en réalité leen ñu ñu libéré lan la ñuy wax dañ ñoo tooñ dañ ñoo jàpp defuñu dara léegi setal nañ ñu te fii yëpp ma Macky Sall la mu ngi nii déshonoré na justice justice bi fi mu ne nii ñu ko waxuñu ko ñoom ñëpp am lu leen naqari alkaati yi defoon seen i effort leen fi ay birig bëggoon leen a rey ñoom ñëpp amul leen naqare dañ ko mënta wax xam nga ñoom même bu ñu sukk dañuy noppi mhm. président Macky Sall nag amul benn problème gaañu ñu ko gaañu ñu njabootam rey ñu njabootam rey ñu kenn ku takk ci moom yàq ñu dara mhm. kon nag juma fu lay def damay def li ma neex nii laa ko bëgg nii la ma neex di bu mhm. ci am ndam nag d'accord yaakaar naa loolu leer na du ci am ndam dina ci wéet ndax nag bu bu ko yaakaar nañ ni même bu député yi APR yi voté ñeneen yi duñ ko voté parce que bu fekkee ni ñoom sakkuwuñu ko muy waa waa waa waa ex te am nañ fa ay député yaakaar naa ñoom kon ko sakkuwuñu ko gëm gëwma ni dinañ voté loi bi. député yi taxawu Dakar duñ ko voté député yi PDS duñ ko voté. Coura Macky il m'a confirmé ne du ko voté. waaye temps bu nga ko doon wax léegi. wax na ma ne lii sama diggante Macky Sall fii da nar a jaar ndax lii dama ko fas. Mhm. am na ay ñeneen ak ñeneen ñu ne ci biir jouru vote ba lay doog a xam ne nag lii mu dugal baaxul. d'accord parce que lii xanaa yow sax boo nee damay jéggal ay nit nga gis journaliste bu mel ne Maimouna Ndour Faye ñu bëgg koo rey war a taxaw ne tax tekk taxaw jot na parce que attention Maimouna fay Faye jawul bu de moom mooy mooy daw nii ba tey de ci lañ ko doon jame de. dinañ ñëw ci moom incha allah. dama ne kon tey buñ am ne si. d'accord. kii ko dañ ko ci boole. parce ñu ngi revenir si kanam. bu ñu jàllee ci euh, beneen point macha allah ñu ngi lay jëfal bu baax a baax. Tange yaakaar naa li nga wax rek la Abdou Nguer confirmé ni que loi bi euh, Macky Sall dina ci wéet te du ci am ndam. waaw Abdou Nguer dañ koy nuyu foofu ca Kolda di nuyu waa Kolda yëpp di nuyu waale waa Gadapara waa kilo waa Aslem Diobène di leen nuyu bu baax a baax a baax yaakaar naa ni li Abdou Nguer wax mooy xalaatu sénégalais yëpp. parce que tey soy amnistie nit da ngay fekk kooku dal di rëccu parce que nit ki soo ko tëjee ci kasso até woko defoko dara moom mu jàpp moo nekk ci deug su génnee en lay génnee mhm. je crois que Macky Sall dafa fogg da fay indi jàmm ci réew mi mais tension la indi ci réew mi insécurité la indi ci réew mi té li fi jot xew je crois que lolu insécurité la nit ko tej ci kasso nak mu wét fa pendant des mois Mm-hmm. gisul ndey gisul baay di lekk-lekk bu yi di gis benn injustice gis nga ñenn ñi naan dañ leen torturer mm-hmm. barki démb bu ma dégloo Assane Diouf mm-hmm. dama am lu ma métti bi mu nee dafa dugg xaw ma kan moo waroon jox xaw ma kan Cheikh Bara Ndiaye mu wax gars yi jël ko dóor buntu weñ bi ci tànkam mu damm gars yi ñëwuñu ko en secours mënate ko tëral ko chef de post bi ñëw gaay yi ñëw ñu ne ko non ñun suñu mbokk pénitentiaire lu mu wax moom la ñuy solidaire te xooluñu justice je crois que kooku su génnee haine lay génnee mhm. te l'abolition de l'esclavage a été faite depuis 1848 on doit respecter les détenus c'est des humains dañu def erreur prison yi aussi li fa nekk foog ñu wax ko donc euh, je crois que personne n'est d'accord avec cette loi d'amnistie mhm. Macky Sall man personnellement il m'a trahi de ma part personnelle sama wàll ci mm. Sénégal D'accord, accord naag moom lépp ci àdduna mais loi d' amnistie bii mu bëgg jël projet bi nga xamante ni am na ñetti nit yu dee barki démb ci rapport élection yi ñooñu xam ne dañ leen ciy boole mm-hmm. ñooñu seen jooyooguñu seen néew nga né da ngay bal ñi leen ray frère étudiant bobu ñu ray unité nee na voté loi d'amnistie bi manam moy daganal ki nga xamante moy mooy assassin wu frère am kooku est ce que xam nga ni tay esprit de vengeance mo nekk ci bir ah batam ah barki dembu amna ben soxna bu nekk Maroc Khadija je crois le tudd. daf ma wut sama numéro ci Cheikh Thiam l'ambassadeur. bi mu ko wutee ne ma temps yàgg naa la suivre mais est-ce que xam nga ni sama doom. musumaa tontu. nee na ma sama doom musumaa tontu. dafa jàng ma fayal ko léppam. nee na bi ma ko fayee lee léppam ba mu jàng mu dem recruter nekk armée. bi mu nekkee armée. mu ne dafa bëgg a dem armée recruter na ba war a dem. nee na keroog bi opposition yi taxawee ne policiers yi ñoo jàpp manifestation yi du dóor si la jóg xaw tontu ko ne ko yaay demal suma ndax ndaxte Macky Sall dafa formé ay policiers saa ñuy dóoraat askanam nee na ma jour boobu temps damaa am li ma naqari su ma amoon fu ma koy jooyee dinaa ko fa jooy mhm. xaaral ma wër audio bi je crois que dama koy teg parce que nee suñ ko joxoon plateau da koy wax nañ ko déglu <laughs> <laughs> waaye jom boo xamante ne nii ay kilifa sénégalais ñoo ko ñàkk jom waaw xam leen moo ma jaaxal ah, nag nu mu tudd Khalifa Sall la xaw ma ñoom lañ doon voté ñoom man vote boobu moo ma jaaxal di moo man ma man moom moo leen dem samay bët mënatumaa xool moo ma jaaxal di ban vote la loolu ban vote la noonu ban élection lañ doon voté noonu ak après les les votes kan la ñu non du parce que dama effacé ay message mhm. dama effacé ay message donc mais bëri na ci ay morom voilà bëri na ci ay morom mhm. parce que nee la même fii effacé dama effacé ay message parce que dafa ne sama doom musuma tontu mais dafa jóg tontu ma mhm. tey dematul armée mi ngi bëgg a sacrifier nee na si laa ko ne nag sànnal sa avenir ñi defar nañ seen avenir pare mu ñaanoon ma pour ñu jàllaleel ko message boobu d' accord ñu ci amnistie bi benn yoon donc je crois que le président Macky Sall mi ngi sénégalais Déjà, déjà ñenn ñi jàpp nañu moom su foogee li day indi réconciliation du indi réconciliation majorité sénégalais yi jàpp nañu dafa pousse élection yi ci coobare boppam jàpp nañu crise bi moo ko fi teg Macky dafa gën a sol haine ci biir sénégalais ci biir boppam alors que bi mu demee bay bëgg a dem sénégalais yëpp ñu ngi doon rëccu li nga xamante ne mooy demam mais mi ngi bëgg a yàq li nga xamante ne mooy demam na bàyyi justice def liggéeyam mhm. président bii ñëw su dee mooy projet projet amnistie boobu mu porté ko mhm. mais ci kaw ñooñu jéggalu ah mais ku jéggaloogul mais ñi nga xamante ne ñett ñi dee ñii barki démb laa wax ci rapport élection yi mais ñooñu jooyaguñu seen néew nga ne da ngay baal ki leen rey il est en train de semer de la haine dans le cœur des sénégalais haine boobu xam nga lan indi violence violence boobu xam nga lan indi guerre civile lay indi ah ku nekk day dem di fajali bopam. Hmm. ma nag kan moko conseiller ak kan moko ko na ci gennat ba mu set wecc député nak bo xamanteni voté goko. ko ni ko tu as trahi ton peuple mm-hmm. te di nga jàmmaarloog Tange Tandian ba kérok yowmal qiyam. j'étais du côté des victimes tay laa gën a solidaire réitéré leen lii nga xamante ni mooy sama engagement nekk seen côté pour ñu xeex lii ba nga xamante ni ñëpp ñi faat seen doom il faut que la justice soit faite on veut une lumière par rapport à ça combat bu ñu porté pare naa pour def ko et je suis prêt à laisser ma vie devant ce combat bi nga xamante ni damay xeex benn injustice bu ñu bëgg a teg ci ay famille ëllëg ak ci biir ñu ne Tange Kane bi ñu bëggee voté loi d'amnistie bi injustice boobu la doon xeex ba ñàkk ci sa bakkanam je jure et j'ai doxe naa sama bakkan pour loolu d' accord yaakaar naa bëri nga ci ay morom dafa am ñoo xamante ne mënuñu wax rek mais au fond de seen euh, xol